kita bersyukur ok léegi na ñëpp ñëw ana ana ñaari kii ya doomu baay ma você o gurizão. Beleza, vou de Domo Bay. yàlla na sa teraanga yokku. sa bëtë géej nag. yàlla sa mën-mën yokku. amiin lu am da koy yab ci ay saako daf koy enveloppe. lépp waa Tëngéej la koy jox. dëgg di ko tiitaroo. dëgg la di ko ndamoo. dëgg la may ànd ak seen caat muy jaxate. Mm-hmm. nekk sama nit nekk nit ku baax. Mm-hmm. nekkul dara bàyyi ay mbokk. déedéet kon ni mu mel nii rek la mën a mel. Mm-hmm. ndax première dame yi xam nañu mooy kan. loolu am na. Euh, kon nag dalal ak jàmm. waaw ah, léegi dañuy génn rek def cortège bi dem si yaay mari te defal leen pare dafa ba pare suy dem si si kanam ñoom ñaar ñu may leen wala xaaral bañ génn bañ génn ñu Thank you. Oke, léegi na ñëpp ñëw ana ana ñaari kii Sigma Bike. Thank you.

dos. Y de negro suelto. Era un chiquillo, lo llamaba un mamá. Pero estábamos al cola. Se va a acordar. kay dinaa la wax fi ngay taxaw kay ajë maje maje kay ga maje aji dugal yàlla muy dund yàlla bañ ko doon Voilà donc, euh, voilà mesdames et messieurs, l'entrée de la reine accompagnée de la grande mois de Diakhaté. Ngeen tàcculee bu baax a baax a s'il vous plaît, des applaudissements. waaw yéen moom dëgg yàlla dafa jàpp nag ñëpp jóg taxaw ngeen jóg taxaw tàccu ko waaw ngeen teeru leen voilà merci beaucoup. Accompagné de Papis euh, qui est en train de présenter. Euh, ces autorités qui sont invitées au Présidium justement pour recevoir la reine et recevoir en même temps Madame Mitoumadel Diarté qui est la marraine de ce soir. ko doo ajaratu ñuma jëng jaxate ana naa ki penn may ji leen ko muy jaalo man ko doo man ko du jaloon yaa muy jaalo man ko doo man ko doo reine bu bëggoon ak la reine bee nga xam ne mooy yor or bi porté la carte de l'Afrique cette reine là qui a fait vingt sept ans en France en Europe ñëw fii depuis deux ans au Sénégal parce que nee na maam yi ñoo ko woo moo tax cosaan dafa am solo elle s'appelle la reine Essigeri Agen

yaayam ci man euh, yaayam defe naa joolaa papa ji mooy séeréer waaw bu ñu wax moo moo ko représenté merci beaucoup waaye kii mu àndal ak di Moustapha